voilà ami cher internaute nuyu naa leen bu baax di leen ziara di leen euh, sargal saa su ne si ànd bi nga ñu ànd ak euh, Rio Plus votre euh, toute nouvelle chaîne digitale en temps réel la ñu ko dippee donc mbégte ak contentement la ñu am saa su ne suñuy jàkkaarloo ak yéen suñu télé di leen tegtal li nga ñuy xaar si ñun rawatina bu màgg bi di leen baalu àq di leen baal àq si bés bu mag bi di korité yéen ñëpp ñu ngi leen ñuy ziara di leen sargal donc ñu ñëw fii si grande mosquée bu Rufisque donc ki ko korité oblige donc dañuy topp

ki nga xam ne mooy art de collection numéro bango di jàll si suuf moo jaax si li nga xam tey ji ah, mooy ah, tenue bi ah, donc ñu koy jaajëf bu baax moom art collection si tenue bi nga xam ni offrir na ko li nga xam ne mooy Rio Plus tey ji si korité ji kon bokk li ñuy def rek mooy daal di ànd ak suñu caméraman dugg si biir wane lan moo am si biir jërë ngeen jëf si kanam tuuti allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله رب العالمين فسيدي جواهر سنة يونس صلى الله عليه وسلم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 خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لصاعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوع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 Allahu asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah وهو السراج المنير هو النبي الإنسانية أخرجنا من بوتقة الجهل إلى نور المعرفة وإلى الإيمان وإلى اليقين بالله وإلى المحبة وإلى السلام وإلى التطور والتقدم سلام إذا لم يكن إذا لم يكن عاما فليس بفرح فالفقراء والمهتم service am su deewee perte yàlla moom du fi yore baaxin waa li ñun wa sarmadi yàlla moo mat a jaamu kenn du jaamu doomu aadama kenn du jaamu institution kenn du jaamu lenn kenn du jaamu góor kenn du jaamu jigéen yàlla nag la ñuy jaamu waabudullaha wala tushriku bihi shay'an suñu ko defalee suñuy taxawaay ci julli yi amul njëriñ suñuy naafila amul njëriñ suñuy woor amul njëriñ amul njëriñ tant ñu ngi bokkaale suñu borom subhanahu wa taala di ko associé ak la moo xam ñu mën a ku ñu boo boo jël suñu borom subhanahu wa taala yàlla génne na ba set loolu mooy li jëm ci ku nekk ci ñun. mooy nga setal sa yàlla yàlla ci bokkaale setal ko ci lépp loo xamante ne lii day indi ay sukku sukku wala ay nunu yoo xamante ne yi tegagul ci bawlox bi bokk jullit bés bii tey bés bu yit la bés bu mag ci suñu borom subhanahu wa taala bés bu mag ci xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gërëm bi nga xamante ne saa bu doomu aadama jullee ci kaw suuf ñu ngi julli ci moom saa bu doomu aadama jàngee alquran ci kaw suuf ñu ngi julli ci moom saa doomu aadama wëree ñu ngi julli ci moom saa doomu aadama waxee allahu akbar di dugg ci biir julli di waxanteeg borom subhanahu wa taala ci boobu ñu génn ci lëndëm moo ñu génn ci lëndëm yóbbu ñu ci leer soo nekkul ci leer yaa ngi ci lëndëm soo nekkul ci lëndëm yaa ngi ci leer amul dara la ngay dara di gën seen diggante te leer mooy alquran kër mooy yoon bi nga xamante ne moom ñaari mbir dañoo jàpp mbir mi mu njëkk bi mooy génn ni ci koor ak lan ak leer bu mën sët lu tax daan na jàng alquran lu tax daan na def tarawih lu tax daan na yëg ne seytaane bi mu génn ba nga xamante ne mënu laa jax jaxal nga dégg leer musique du doo ko dégg ci mbedd yi jigéen du solati loo xamante ne nii jaaduwul loolu dañ ko def ba mu mat benn weer ñu génn ci mbir mi moom dafa war a sax ci suñu biiru xol dafa war a feeñ ci suñu environnement dafa war a feeñ ci suñuy dëkk mais su fekkente ne dañuy génn si guerre si koor delluwaat si li ñu nekkoon bañ mën a dugg si koor daa ko def bañ mën a dugg ci koor moo gën dugg ci koor ba génn yàlla feesal la soo ko defee si mbedd yi da ngay ndax ay awar yu génn si biti feeñu fan booy dox ci mbedd musique moo lay bëri ku nekk taal si musique doo xam looy wax doo xam looy dégg am désordre boo xamante ne kenn xamul mu ngi doon kon lan moo tax ñuy woon ñun dañuy nax suñu borom dañuy yaakaar ne mën nañoo nax yàlla mën nañoo nax suñu borom subhanahu wa taala maanaam weer ñëw rek nga ñëw mobiliser sa bopp mobiliser seen énergie su leen liggéeyee nga delluwaat seen am na ñoo xamante ne nii li ñuy jeexale seen koor mooy baax yi ñuy tënk li ñuy jeexale seen koor mooy soirée yi ñuy tënk kon ana koor koor bi lan la def si yow mbokk jullit yi doomu aadama su génnee ci koor dafa war a def li ñuy tuddee tasbih tasbih mooy lan mooy lépp lu mu doon def di ko entraîné ci biir weer koor bi mu saxal ko boppam ci biir rafet yi nga saxal ku nekk sopp sa moroom ku nekk bëgg sa moroom ñu bañ di def affaire waaso loolu ñu ngi siy insister bu baax parce que seetlu nañ ne nit ñi léegi ku nekk fa nga bokk yaa ngi xëcc di jëme foofa te ñun ensemble lañu fii ci senegal li ñu sant mooy ñu ànd nekk benn euh, ku nekk nag am nga droit bëgg lii wala nga bañ lee loolu moom ci àdduna bi la ko yàlla def moo ñaalee ñu ko waaye li ñu am am ay différence yëpp aussi dafa jaadu ñun ñëpp ñuy retrouver wu ci essentiel bi te essentiel bi mooy lan mooy suñu diine essentiel bi mooy lan mooy suñu mbokk essentiel bi mooy lan mooy réew mi nga xamante ne ñoo ko bokk te mënuñu ko xàjjale ko ñu jéem kaa sopp jéem kaa bëgg li ci des nag moom ay comportement individuel la comportement individuel yi mooy ku nekk ci sa yow xam nga li nga baax baaxle xam nga li nga bonle ñu ngi génn ci weeru koor li nga baax baaxle fexeel ba saxal ko moo tax ma wax ne tey ji bésu décision la décision ci lan ci saxal alxuraan ji nga doon jàng ci saxal ngëm yàlla nga nga doon wane di saxal mbokkoo nga nga doon wane di saxal moytu tere yàlla ya nga doon wane waaye génn ci biir weeru koor delluwaat ca la nga nekkoon bañoon a woor sax ak gën kon lii mooy yi nga xamante ne moom la ñuy woo suñu bopp di ci woo benn bépp jullit boo xamante ni bii yaa ngi nekk si jumaa ji te mën naa wax ne imaam yi nga xamante ne ñoo nekk si yeneen jumaa yi itam loolu la ñuy woote kon nañu bàyyi di lor dëkkandoo yi nañu bàyyi di def désordre ci société bi so euh, développement désordre du ko andi il faut ñu xam ne dañu war a liggéey takku kenn du jege si àll bi di ñu liggéeyal suñu réew ñun ñoo ko wala liggéeyal suñu bopp te liggéey aussi kenn du ko def ak coow lu bari te ñu seetlu nañ ne boo xoolee réseau sociaux yi ni muy doxee saagante bi yu ñaaw yi siy génn ak wax yu bari coow yi ku xam day wax ku xamul day wax loolu c'est vrai moo société moo ànd mais ku nekk yaa war a yar sa bopp bu boo duggee ci biir réseau nga xam naka nga fay comporté woo parce que na nga waroon a mel si sa biir néeg yaakaar naa ne noonu nga war a mel boo duggee ci réseau bu mu mën a doon waroo wax lu ñaaw waroo def lu ñaaw loolu daal si gàttal mooy baat yi nga xamante ne yi moom la ñu doon jéem a sànni moom la doon jéem a wax di ko sax suñu bopp avant ñu koy sax kii ko ce soit di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal ñu jàmm si suñu réew ndax jàmm si la lépp xaj bu ñu amulee jàmm duñu ñu mën a maa ngi joxe exemple Ukraine léegi Ukraine la fa nekk kenn xamul lan la da ngay gis ay mag ay xale yu ndaw ñu leen di rey ay mag di yore di dem doo xam fan lañ jëm te lan moo ko waral guerre guerre amul benn njëriñ xuloo amul benn njëriñ dóorante ay bopp amul benn njëriñ jamante ay paaka amul benn njëriñ lépp dañ ko war a waxtaane suñ ko waxtaanee dinañ trouver solution en tout cas yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu la ñu sant waaw loolu man damay jël ay exemple ay pays yoo xamante ne yi loolu moo fa am par exemple soo demee Égypte loolu moo fa nekk soo demee si yeneen pays moo fa nekk mooy parallèlement ak enseignement yi nga xamante ne mooy enseignement moderne dañuy jël religion dugal si religion boobu exigence bi ñu am si enseignement bale moom la ñuy am si bii jàng alquran jàng xadisu yonent bi xam magu mag ñu baax ñi liñ fi nekk woon démb ak démb ak barka démb loolu yaakaar naa ne modèle d'enseignement la boo xamante ne et d'éducation buñ ko euh, adopté yàlla mën dimbali ba jafe-jafe yu bëri duñu duñ ko duñ ko jàmbatati am na loo xamante ne nag mënul nekk maanaam société boo xamante ne bu idéal à cent pour cent amul fenn si àdduna problème yi ñuy dund ñun des fois dañ koy fàtte problème yi ñuy dund ñun mais moom la Égypte di dund moom la euh, Arabie Saoudite di dund moom la keneen di dund moom la keneen di dund mais yàlla daf ñuy nattu natt yooyu muy nattu daf ñu bëgg xam naka la ñuy comporté woo si situation yu métti donc dañu war a taxaw te noonu lay continuer na ba yomal xiyaam du arrêté de ku fi yaakaar ne bu ëllëgee yàlla du nattu kenn da nax sa bopp kon nattu bi day continuer mais si biir nattu bi lu mu ñu sant mooy ñu góor góorgóorlu ba di génn indi ay solution yoo xamante ne moo ñuy permettre ñu mën a dund dund goo xamante ne dund gu yéwén man ko jaamu man dellu dellu ci moom dellu wu rafet ndax en définitive fii ñu nekk nii taxaw dëkkuñu fi dañ fi romb fii ñu taxaw nii ay nit moo fi ñoo fi nekkoon doon gérer jumaa ji ay imam ñoo fi nekkoon depuis combien d'années léegi ñu nekkatuñ fi ñun ñoo fi nekk donc quelques années yàlla na yeex trop ñun duñu fi nekk ti kilifa gaa ngi nii mooy El Hadj Pa Ablaye Ndiaye moo ngànk jumaa ji remplacer fi nu mu tuddati mag ñi kon nag euh, loolu daal moo amoon moom mooy doon nekk message ñu am nag ay gan ren jii euh, El Hadj Pala Mbengue mi nga xamante ne moo nekk sama wet di ndey ji réew Tëngéej ñu installé que mu ñëw fii julle ak ñun loolu honneur la boo xamante ne mën ñu kaa baña feeñal fii te dégg nga sama plaidoyer sànq li ma wax ci affaire jumaa ji ñoom ñii ñooy suñuy làmmañ ñoom ñooy ñooy suñuy tànk pour que jumaa ji ñu mën ko defar parce que président de la république defar na yeneen juma kon juma ji dañ ko war a defar lii may wax nii nag na nga ko génn de génnal li ma waxul lépp li ma jëkkoon a wax lépp génn ko waaye nga wax lii ma wax nii génn ko président de la république na defar fii suñu juma wax nañ ko préfet mu ngi nii représentant ma ngi nii préfet ku am taxawaay la ku jàmbaare la El Hadj Pala Mbing mi ku jàmbaare la ko am taxawaay la loolu tax ñoom ñooy suñu yaakaar ñu di leen ko wax fii de la manière la plus solennelle ñun lu ñu mënul ñoom ñu mën ko pour que président de la république ni mu defee ay milliards si yeneen juma juma ji nga xamante ne amul benn juma bu ko jiitu fii gannaaw pire avant pire kon loolu moom appel la boo xamante ne bii yéen ñëpp ñu ngi koy séddee. Blanchot nee nañ un milliard cent soixante dix mille président de la république. yow xaritu waa Tëngéej nga yow soppee waa Tëngéej nga ñu ngi lay ñaan nga defar suñu jumaa jumaa ji soo ko defaree mel na ni defar nga jumaa yi Tëngéej yëpp. haza wa billahi tawfiq wa salaamu aleykum.